li nga xam ne moom la gënalee nit ñi lee ko bis ñi guddi ajjuma bëccëgu àdduna guddi altine bëccëgu altine weeru koor laylatul qadar laylatul mawlidin nabi guddi gàmm ak tabek suñu borom gi di gën a sotti ko ne waame waaye ku mu fekk nga taatal sa ndab mu duy ko ku mu fekkul nga taatal sa ndab wala sa ndab salte bi te sotti dara صلى الله عليه وسلم دفنا الا ان ربكم في ايام دهركم نفحات على فتعرضوا لها سين بروم دي دافا ام سي بيسي جامونو يي اي سوتي يوموي سوتي اي اوب يوموي اوب دي سوتي اي اك تابل منين فخي با تاتانو كو لو تخ ني خول بو سيت دي سي لا يرمنده يالا دي واتش سي لا ليرو يالا دي واتش فرال نكوي مثالي نه bërëb bu ay mbooloo daje te xol ya yàlla nekku ca ñuy fo wala ñu ne ci luy tax a fàtte yàlla seytaane loolooy dundam seytaane day ñëw ànd ak kuréelam fees bërëb ba dugg ci xol yi walbati seen xol walbati seen xel jëme ko ci àdduna fàttaloo leen dee fàttaloo leen àllaaxira mu mel ne bërëb boo xam ne dañoo taal ay sondeel yu bari def ci muy ngëm yi muy ngëm nit ñi ñi fi gëm léegi borom xol bu dem bu dugg seytaane laq ci and ak mom dugg ci bu dugg ci mu melni soñal yoyu ngelaw likoy upp léeg muy bëgg fay léeg mu dëng jëm ci wet gi léeg mu dëng jëm ci wet gi léeg-léeg yenn yi fay moy ngëm yi ngëm yépp day wañi ko nonu leeru soñal yi niko ngelaw li wañi wañé nonu la seytaane yi dugg and ak xol yu lëndëm yoyu non lay wañé leeru ngëmuk yoyu bu yagge leeru ngëm ya dana néew doole ba seytaane gën a am doole dugal nit ñëpp jaaral leen ci yoonu texee di jaaral leen ci yoonu perte jaaral leen ci yoonu réccu ëllëg gën leen a sori yàlla waxtu woo xamee ne nag borom yi daje nañu seen xel nekk ci yàlla rek ñuy waxtaane yàlla seytaane day bu jugee fo bërëb ba day daw day tiit ragal bu ragalee du fa jege mukk du fa dugg si li nga waxee woon rek ne seytaane mooy xaj bu xiif bi néeg bi mooy xol bi ni ma ko waxee woon rek seytaane day jóg di wëtti ni nag yi ak xar yeeg bëy yi di wuti lu ñu lekk ci àll bi noonu lay rëbbe xol yi di wut fu mu dugg fu mu dugg def fa musiba dana fa nen dana fa tàgg nen fa toj fa dem yoonam wacci ko fa nit ki nekk ci musiba ba balay yooyoo mat ba naaw mu dellu si waat bañ ne ko ana ku la gën a sonal ci jaami yàlla yi mu ne ñett ñi ñaar ñi sonaluñ ma kenn ki rek moo ma sonal ñu ne ko kan mu ne ki dul mooy mukk mënu ma fexe ba mu jàddloo ko ki dëkk ci mooy lu ma jóg bu ma ko rombee rek kontaan dem xam ne la ma bëggoon ma nga ca waaye ki ma sonal dëgg mooy koy xam ne day jàdd ba noppi gal di tuub tuub boo xam ne gu dëggu ci moom du ma ko bàyyi ndax fas yéene yaakaar ni rek danaa ko mën a dugal moom itam duma noppal ndax su ma ko defee li may def rek mu tuub loola dañ duma ma noppalu du ko bàyyi kooku mooy ki ma gën a sonal والذين جاهدوا فينا لنهدينهم subulana sun borom dafa mel ne dafa yóbbu nit ñi ci béréb sori taxaw fële woo leen ba ñu dégg baatam yoon yi nga xam ne ci lañu war a jaar agsi ci moom mu samp ci ay pusa samp ci ay rabbu ay dëkk ay xali safara ni leen ñëw leen ku ñëw mu teral la ganale la ngan gu jeex mukk defal la li nga bëgg lépp ku yem ci yoon wi bukki yi ak till yi lekk la jaan yi màtt la noonu la dunduk àdduna gi mel nit ki day muñ tiisi àdduna muñ naqari àdduna muñ nattu te julit mom lu naqari mën ko dal jul bi nga xam defar xolam defaruna dara mën ko naqari ndax bu ko tiss dalé mu ne ah suñu borom day daf may nat ngir sétal sama bakkar wala bu sama bakkar bari wul dafa yëkëti sama daraja wala dafa ma bëgg teral ëlëk ndax sun borom xaritam lay nattu bu le nit toñé nga rek ki res bo demé dama def bakkar bu tax sun borom xéer ko ci man may ko kàttanug bu man ma toñ naqaral ma ngir sama xol naqari ndax sama bakkar wañiko waye amna luma naa naqari ndax nit ki buma ko mënula bal limma def dana alku wala mu am bàkkaar wala mu dem safara te bëgguma woon benn jullit dem safara ba ñu ne bu la jullit bi sàccee sax wala mu wax la lu la naqari na nga naqarlu bu ko ñaanal ñaan gu bon bu ko yéene lu bon ndax suñu borom moo la nattu alal jooju mu la joxoon moo ko nangu yoon wi mu koy nangoo nag dana la ci nattu bu fekkee ne da nga koo yëkkati def ko ci yoonu yàlla nattoo na la ko nattu bu sedd bu bari njëriñ nattu bi moo di sa alal jooju da nga koy ñàkk ndax seytaan yaay dukumul faqra wa ya'murukum bil fahshaay waxtu wa nga yëkkatee bëgg koo def ci yoonu yàlla seytaan dina la boo ko joxee ñàkk de da ngay perte de bala koo amati da ngay sonn de xaalis bi yombul de te boo ko joxee ñàkk xamuloo li nga am day jeex de boo toppee ñii da ngay ñàkk ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahshaay di la tere itam ne la téyeel bul joxe nga jëm ci jëf ju baax itam muy julli muy koor muy lépp loo xam ne lii dana la jox tuyaaba ju bari seytaane day taxaw ci bunt ba di la tere waaye wallahu ya idukum magfiratan suñ borom taxaw naan la boo ko defee ma defal la lii de boo ko defee danaa la bégal bis boo xam ne si nga gën a bëggee mbég danaa la fegal naqar woo xam ne bis booba la naqar gën a bone الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ولا يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم mu ne la kon na nga tànn ñi day xaritool ku mel ni ki ma waxoon léegi سيدنا علي فلا تصحب أخ الجهل فإياك وإياه فكم من جاهل أردى حليما حين واخاه بل عندك مك أجي رير ريرم كتير لي ولا نم لي وانا مبريد بوك نمو دمي تدف لكوي وانا نو خمنا دانا نيخ تسخل بوك تفيرك فرسنر فكم من جاهل أردى حليما حين واخاه برنا أجي رير جو خمنا ألقنا كجب كرافة خل ba mu dëkk ba ba nga xamee ne xaritoo naa moom ànd ak moom mu dugal ko ci leneen xarit bi lay dugal ci jëw di la bañ loo diw sàngam di la wan ay bi jaambur ji mooy xarit bi nga xam ne mooy noon bi gën a bi nga xam ne moo lay dugal ci loo xam ne leer na la ne ngërëmal yàlla nekku ca yërmande yàlla nekku ca xarit bi lay tooñ loo bi lay xëcc jëme ci nga am noone ak benn jullit ndax soo ko mënee bul nëbbal ci sa xol benn jullit lu aay ndax dana xañe am na ci yenn ci leer yàlla yoo xam ne loolu rek mooy mbañam bañeel bañ jullit mooy mbañam ak yi nga xam ne tayeel mooy mbañam ak yi nga xam ne reggaay bu ëpp bu sax mooy mbañam boo bëggee xeeti leer yi bari dangay ngay wattandiku yooyu yëpp te doomu adama bi ni ma waxoon rek ne suñu borom bind na ko noo xam ne lu mu bëgg a mën mën ko ci tàggat boppam waaye la na am njàmbaaru muñ ci tàmbali bi ndax soxla woo xam diine ak jëfe ko wattu neenal jamono bàyyi jamono mu paase ci sa dund te dund gi benn yoon nga koy am te guddul te dund gi fukki at yi nga njëkk am wala fukki at ak juróom wala ñaar fukki at defuloo ca dara boo dundee itam juróom-ñett fukki at daanaka fukki at yu mujj yi doo ci am kàttan ba mën cee def lu am solo diggante bi nga mën a jaamoo itam soxla yi bari na itte adduna yi bari na daga tay, daga ñak diusi, di wuti daga nga wo yu bari ba tax na la nga ci waroon jaamu it ko jaamu kon nit ki bu sété ni jamono gatte ni mu xaté ni dundam gatte dana ko yu bari te dana gorlu ba mu bari neenal jamono tax na nit ki war a wattandiku kon perte na sammu tax ñaka sammu dana yàq jëf ni ko añaan di yaqé sun borom dafa fonk jullit ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa fab loxoom teg ci kaaba gi ne ko yow tabax bii ñu tabax ngir yàlla tabax la ci yàlla bii jëm si ci yow ngir yàlla toj la ñu tabaxaat la ma toj la ñu tabaxaat la ba muy nang bi moom a gën a lor benn yoon benn jullit kon lor jullit ndax dañ ne xormatul mumini azamu min xormatil kaabati war may jullit moo gën a màgg war may kaaba gi juróom ñaari cër yi mu dénk te dina ko laaj ëllëg nu farlu ci sàmm ko te nu yaru wattandikoo lor jullit boobu bokk na ci bul toppatoo ay yi bi jullit ñi bañ nañ ko bane sax booy dugg ci néeg yaa ayyuha alladina amanu laa tadxulu buyutan xayra buyutikum xata tastanisu wa tusallimu ala ahliha booy dugg ci néeg bu dul sa néeg na nga tàggoo bañ na la duggal wala aaday euh, tubaab la ñu amee foofu dañuy fëgg koŋ koŋ koŋ ñu ci bari ñenn nag ci xale yi bu ñëwee bismillaahi duñ xam ne dañ leen ni ngeen dugg ndax tàmmuñu ko entrée wala wuy lañu tàmm ñu soog a dal di dugg bala ngay dugg ci néeg bi nga moomul hatta tastanisu buñ ne leen dellu ca gannaaw day waa ji mooy baadoola maa ngi ñëw di ko nuyu bëgg mu naan ma dellu ca gannaaw wala nga demal dama jàpp yow moomu yaay baadoola ndax nit ki dana am diggante yoo xam ne du bëgg ko ubbi néegam dugg suñu borom wattu loo nanu loolu laa tadxulu buyutan xayra buyutikum xata tastalisu wa tusallimu ala ahliha ذلكم خير لكم لا فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يزن لكم boo fekkul kenn ca néeg ba it bala ngay dugg naka moom néega wala ña sës ci moom ne la duggal wa in qiila lakum urji'u farji'u wa azkaa lakum laysa alaykum junaahun an tadxulu buyuutan ghayra maskuunatin fiihaa mataa'un lakum néeg bi nag boo amee loo fi denc te kenn dëkku fa aayul nga dugg see bu fekkente ne nag yow néeg bi moomuloo ko sa mbokk moomu ko mbokk kat buñ ko dee wax ñi la gën a jegee tax ba duggee ñu ne la bismillahi duggal wala entrée ba nga dugg na nga gàttal sa bët bul xool fu nekk mën nga faa gis lu nit ki bëggul woon bëgg ko nga gis ko ولا تجل في بيت غيرك البصر حتى خوف اطلاع عورة فيه ستر ولا فيه ستر من برم نيك لو نيت بيج نيت كي maandu bañe lor julit ndax bët dañ koy bindal bakkar ci li mu xool te day def tâche ci xol nit ki di ko fàttaliku mën na koo lor ci jëfe ko قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم يخاف ما يسمعون وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا لبؤولتهن او ابائهن او اباء بؤولة او ابنائهن او ابناء بؤولة او اخوانهن الى اخره الى اخره يوم يلنت بصلاه وحل جلد ني نانيو غاتال سينو سيت te ñu wattandiku seen pay bàkkaar yu bari bët moo koy xëcc ndax bët mooy xool ba gis li nga bëgg te daganul mu dugg ci sa xol nga topp too ko fexe koo wut ba jëfe ko yaqubbu min absaarihim bët lu bokkul ak bàkkaar yooyu sax yi ngay xool di ko ittewoo day fatt bunt yi nga xam ne mooy bunti xol yu ubbi ko jëm ci leeru yàlla يقول للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن القران نينا وخال جولي ني جيجين ني ناني واتو سيني بت ني واتو سين بوب وايه سين رافتاي سين تار سين مانام سين تواليت سين يره بنكو وون كودول سين بروم كير اه مور داي وار فوفو suñu mbokk yi ñu si bari bala ñuy bu ñu nekkee seen borom kër duñu sol lu rafet duñu toilette duñu def bu ñuy génn nag xam ne mbedd may leen di xool dañuy ragal a génn ñu naan waaye ak salte waaye kii de moom nii la mel waaye xam xanaa mbubbam mi nen lu ba la mu ne xam bis bu ne moom rek lay sol waaw soxna si balay génn xam ngeen ni góor ñoom bu ñu takk or bi ngir bëgg a génn yenn toilette yi du leen ci fekk duñ ci xeesalante duñ leen mbubb mbubb sàngam de moo xew ñu lepp dajale seen kii jënde ko ñeen fukki junni sol ko ñaar yoon ñu ne xewi na ñu sànni ko fële wut leneen lu ñu ngeen jéggal ma ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره لا moo waxoon ci mbubb yu seer yi lu puukaree ngi ci yàq ngi ci yàq alal xaraam na sallallahu alayhi wa sallam nee na wa laqad nahaytukum anil qiili wal qaali wa kasrati su'aali wa idaatul maali tere naa leen ba tàyyi nettali nee nañu ak wax nañu ne nangam ak laaj alal nit ki ak yàq alal laaj moom lu ñu araamal la dañ koo araamaloon daganal ko nag ngir contrainte maanaam li darurati nit ki bu fekkente ne am na mbubb am lu mu jiitloo am lu mu sol ci dàll fekkee ne sedd bu metti na mu am mbubb mu tal am lu ñuy wax piil wala yooyu léegi mu bëgg a dem dëkk ma amul paas te koo dox yoon may na ko mu ñaan mbokk jullitam waaye bu mu ko lor lor gi mooy xamul am na wala déet li tax ñu uh, tere uh, laaj ki ngay laaj xamuloo am na wala déet ndax ki ki nga laaj bu la joxee te fekk lim la jox dafa rus rek rus na la delloo waaye mënu ko lam la jox daganul ci yow riba la bu la joxee ngir njistal la jox daganul ci yow riba la fekkee ne dafa la jox ngir puukare wanu lam la jox riba la daganul ceew yow moo tax laaj ak tege lu tiis a lu doy doy waar la li gën ci nit ki nit ki lim la yéene benn yàlla tax mu di la dimbali ngir yàlla wala mu seet ne jaar na wala nanga mu yëkkati ko jox la loola moo dagan moo teey al aklu bi diine bi lu xaram la riba la te nit ki bu lekkee lu lewul ci biiram du julli julli guñ nangu du woor koor gu ñu nangu te la mu lekk na mu na loola demee rek ci loola la koy xañ ni nga xam ne boo joxee addiyee nit ki fa mu dugal addiyee ja foofu la sa xol di nekk ba faw bu ko defee ci loo xam ne lii lu lu lu lu xaram la saxoon ci lu xaram loola lay nekk ba faw bu dee bi sib noonu laaj bi nga laaj nag ki nga laaj mu rus mun la ñàkk a jox lii mu yëkkati ko jox la lor nga ko lor nga ko lor ju metti lu mat a wattandiku la lu mat a wattandiku la kon doomu aadama bi ngir mu wattandiku xaqi dëkkaale ak way xam ak mbokk lu diis lu ñu njëkk a tere la luy naajeel nit ko ca bis bi la lu ko fay yàggal lu tiis la jëw ñëw gën koo bon te kii jëw la nit ko def ba mu di ko ko jëwee jëw gi mu def ko gën a bon yaa ko fu bàkkaar ki nga jëw yaa ko fu bàkkaar ndax la mu def rawat nag bu fekkee ne dafa def bàkkaar boo xam ne ci moom dong la digganteem ak yàlla la loru ci benn jullit sa yoon nekku ca ndax yow do muhtasib do qadi bay atte mbiri jamm digganteem ak boromam la boo ko mënee laabire ci waxin wo xamné du ca mer du ca am naqar da nga ci am tiyaba waye boko waxé sax waxin wo xamné day mer ba di ca xulóog yow na la l'islam sante nga waxe ko waxe wo ko ni ah aduna bi dund ci dundinu julit mooy tax mucc ëllëg mooy tax sukuraat sedd mooy tax kiraayu bàmmeel neex ba borom du yàkkam ci sax yomal xiyaam ñëw mooy tax du bis penc baa bu ñu bu boo xamee ne bàmmeel bu nekk fett na ba ñu ca tegloo woon ñëpp kenn ku ci nekk jóg taxaw fëgg sa bopp yël bu poussière bi jublu penku aw yoonu bis bi bu keroogee dekk yi dana wuute lool dana am ñu waaj ba jekk bu ñu dee góor takk seen or ak seen jama seen jigéen takk seen or ak seen jama bu ñu dee góor sol li gën a rafet war lu gën a rafet jëm ca bis ba jëm ca béréb ba waaye da gis ñoo xam ne dañuy am tubéy rek ak sous-vêtement da ñoo xam ne duñu am tubéy silib la ñuy sol ak sous-vêtement am ñoo am duñu am sax sous kese la sol am ñoo xam ne xaaw fàlle wëñ la ñuy takk seen digg ba bëy xar yi topp si ñoom di leen ree naa yéen di waaye ba mu nekkee àdduna ku ci am ñaari mbubb sax wala ñett rek da nga naan man de dama rafet maa ngi ne wa nga ne bëy te nun bëy yi nun yàlla suturaalo nanu ndax saxal nanu karaw jox nu geen nuy lacc laccal yéen nag tey jii dañ leen di ree ndax dara taxu leen ah waaw ngeen jéggal waxtu yotagul ba tey ana xaay ah dix minutes def na lu bare bare lu bare bare léegi di fukki minute waaw kon jëw noonu la bone te nit lu tiis lu ko naqari noonu la deme moo xam da ko koo wax wala da koo jëfe wala nga jëf ko ci alalam wala ci noo ko mën a defee rek li ci gën a bon lépp nag rëy li muy bon bon añaane ko yées añaan moom mooy jullit wala bindeef mu am dara yéene woo ko ko nga xam ne soo sañoon nit ki ñàkk loolu wala soo sañoon mu dee loolu lépp nag xol bu ràpp moo koy yóbbe nit xol bu ràpp mën na yóbbe nit lu bari xol bu ràpp mooy ban xol bi nga xam ne duñ ko dundal dundaluñ ko ci fàttaliku yàlla tudd yàlla fàttaliku dee fàttaliku tiraayu bàmmeel fàttaliku yi xew ci sa kanam lépp fàttaliku su mboom ni mu la jekkoo téye la ni waxtu wu ko soobee mu naj la tàbbal la safara ak ayib yi nga am yëpp benn bu ci nekk yóbbu na la safara nga fàtte ko di xalaat ayib yi jàmbur ayib yi keneen di ko liñitu di ko gëstu na nga di ko wax lamiñ woowu doon wax loolu bu keregee fi nga doon wax lu bon li ñu jox ko paaka nga talal sa lamiñ yi mu dagg ko ñu saxalaat lamiñ yi nga mu dikkati dagg ko ba baat yu toll ne la nga ko doon jëw jeex rëy day alak nit ki yóbbu ko safara añaan nag day yàq jëfi nit ki lépp ba noppi yóbbu ko safara ndax dangaa noonoo xéewalu yàlla gi mu wàcc ci àdduna lim ci def neexu la lim jox nit ki neexu la nga feeñal ko xol ma ne xol bu rab boo xam ne ngëm nekku ca boo xam ne ragal yàlla nekku ca boo xam ne xalaat tray bàmmeel nekku ca mooy kañaan kañaan di bon bon bu gën a rëy jëfe ko nag rawati ca waa ji nga xam ne ci xolam am na añaan waaye góorgóorlu na ba du ko defee mukk ko garabu añaan sax na ci xolom waaye dagg na car yépp bu continuer di gor rek day dem ba set bu continuer di gor day dem ba set naka noonu mbooleem ayib yépp doomu aadama bi mën na koo xeex ba dindi ko ci boppam ba mu deñ ni ma ko waxee woon rek ni nit ki nu nekk mën na koo mel lu dul al ittiba al ittiba ittiba mooy ku suñu boroom jële ca biir lëndëm ga ca biir mbooloo mu lëndëm ma ca dëkk bu lëndëm ma xëcc ko ba mu dugg si ci leer gi ci lu dul lenn lu muy jëf mën na fekk sax mu doon jëf lu bon kooku moom ñëpp xajuñu ca kenn du ca wékk sa day def lu la neex ndax bari ñu ittibaawum lu mel ne kaaw Seydina Omar radiyallahu anhu nga xam ne rey Muhammad sallallahu alayhi ko taxoon a jóg mu mel ne Omar Omar ibn Wahb mu nga xam ne rey yonent bi sallallahu alayhi moo ko taxoon a jóg mu dem far tuub mu mel ne هند بنت أخبتها سخنس موي ياي معاوية بن أبي سفيان موي سخنس أبو سفيان من خمنا دفا بانيون يرن تبي صلى بني سيدنا حمزة بابين كوريا من يخل وحشي مي كوريا لدول جيخ نيو جيجين نيب طبقو موي خوف نوكي جولي ني دي خوف سين بكان خوف سين تون دفتي نجارة دفتي تقلمة دفتي تق أفتي سيدنا حمزة بن أبي بن أبي المطلب fi mu tëdd mu xot ci biir bi luqi res bi di ko yëy ngir soxale ko bi mu koy yëy tuuti ci deretu res bi jàll ci biiram yonente bi salaa sallam ne suñu borom bañ na nee na du boole safara ak xam sa ci biiru hind ittibaa mooy loolu suñu borom moo koy defal jàmb bu ko soob du caa génne kenn ku nekk war nga ci def sa xel ne naa xaar ndax dañu ne damay muñ ba suñu borom jubal ma allah na shaqay mi ngi ci lax bari mandargam texee di la est ce que dafa war a sàkku sabab yi ngay fàttaliku gaa ñu baax ñooñu bu ñu leen di waxtaanee ngay gis li ñu defoon ba àgg fa ñu àgg nga di leen roy ndax koo xam ne sopp ko rek mën na tax a mucc ñu mel ne saxaaba yi nga xam ne ñoo doon xeex ba lislaam taxaw nga xam ne gannaaw yàlla bu dul ñoom ak yonent bi lislaam du agsi ci ñun kon kenn ku julli am nañ ci seen wàll ku woor am nañ ci seen wàll ku jihaar am nañ ci seen wàll lu nit def jaamu yàlla gu ñu def rek am na ci seen wàll ndax ñoo tax nga def ko gannaaw yàlla bu dul loolu moo tax ñu ne saxaaba yi kenn mënu leen a jot ci jëf nit mën leen a jot ci daraja ndax daraja moom mi ngi aju ci tabeef suñu borom bi rek ku ko neex mu defal la lu ko neex ñun def yonent ba mu leen def yonent defal la guñ ko dara waaye nag pour jëf yoonu jëf moom yamal xiyaam kenn mënu cee jot saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen kenn ci yéen bu amoon or ak argent jor ko ci suuf ci ba dendu suuf yeb fess itam mu def ko ci yoonu yalla du jot genn wàllaatu kenn ci sama sahaba yi ci jëf ñooñu nak bëgg leen rek mën na sowe nit ki ak ñeneen ñu sës ci ñoom te ak ñu ci ñoom ak nit ñu bax ñi sun borom di tan indi leen ci aduna ngir ñu nek buntu yermande yalla nga di toppatoo xeyntu dundum ñooñu ak nañ daan doxale di leen roy di ca góorgóorlu di digle lu baax di tere lu bon nekk ku ragal yàlla ci biir ak bitti ragal yàlla boo wéetee ragal ko boo wéttali ko ragal ko boo wéree ragal ko boo tawetee ragal ko boo amee ragal ko boo ñàkkee mu ne waxoon rek nen jullit bi moom lay def bu ñàkkee gëm ne ñàkk gi ka li tax suñu borom def ma ko dafa bëgg bu ëllëgee ma bokk ca ña gën a woomal ña gën a jekk ñam gën a teral boo amee it ne suñu borom li tax mu jox ma lii dafa bëgg ma gën koo jaamu yàlla am kattanug jaamu yàlla am kattanug fat sama alal def ko ci lislaam am kattanug julli am kattanug teral sama julli sama jëmm ji nga xam ne moo niroog jëmm yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jullit bi kon lu ko dal muy lu neex muy lu naqar nekk dana ko taay yi ne gën a ba nga xam ne du ñee ku amul du ñee ki wér du ñee ki jekk du ñee ki man du ñee ki tële jullit du ñeetaane jullit du añaan añaan nag kuy ñeetaane léegi nga añaan nee ñu ñeetaane dagan lu dul ci ñaar ñaar ñi jëmm ji nga xam ne suñu borom daf ko jox wërsëg bu yaatu mu di ko def ci lislaam nga ne man de bu ma amoon li kii dem ak maa ko ñee bu ma amoon loolu may itam def ko ci lislaam dana am kon euh, euh, yool bu bari loolu moom dagan na danga ci am tuyaaba sax nit ki dafa am xam-xam bu bari jëme ko ci yàlla rek fu mu toll nga ne ah aka neexoon ma xam lu mel ne lim xam jëme ko ci yàlla di def ni muy def ba faw rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñeetaane ci ñaar yooyu rek la dagane waaye daganul ci leneen te leen lu ci nekk yàllaa tax li koy def ci yàlla bu ko defee am nga yoonu kooka ndax boo ko mënoon def ko bu fekkee ne li nga wax dëgg la ci yow wattandiku njistal mooy jëf ngir bëti nit ñi njistal xatar la ndax boo déggee ñu ne al aklu bi diine lekk ci diine nit ki dafa am du diine am am lu diine te du dëgg ci moom di julli di woor di wax lu baax di def lu nekk ba ñu jàpp ne kii ku ragal yàlla la te ku ragal yàlla ko jox sa alal yool ba dana rëy nga yëkkati sa alal jox ko ngir loolu te la tax nga jox ko nekkul ci moom mooy al aklu bi diine wal aklu bi shafaati da ngaa am daraja man cee xett li nit di ci laaj maanaam naa la intervenir ba nga am sa lii nga bëgg jox ma nii moom ak lu bi diini la ñoo yem loolu lépp lu ñu tere la ci nay roy kon ma ko waxee si gaa yooyu gaa yi yàlla leen di roy fu mu toll rek mu sang yu yu baax yooyu la la ko tàmbali fi ñu jiitu woon ba fi ñu toll ñooñu nga xam ne bi ñu kenn ku ci faatu asamaan si dana la jooy suuf yi jooy la pàkk suuf boo ma sa jaamoo yàlla dana la jooy di la ñaanal bu yomal xeyaamee mu sedd la asamaan si noonu ñoo nga xam ne dañu mujj di barkeb adduna bi di barkeb mbindeef yi di alamul huda di tegtali ragal yàlla ak jub di xam ne sàmm ak segu moo tax ñu ne xam ne albarakatu alamana allahu ma al akabiri barke suñu borom def na ko ca gaañu mag ña kon ñooñu sàkku barke si ñoom yomb na nga tagg leen li sëñ tubaa defee ci xoqa gaay yàlla yooyu ni ko waykat yooyu yëpp defee ci ndax ñoom duñu doy lu mukk sëpp fu tuyaa ba nekk rek daañu ko wuti lu baax doo doo ci doy lu mukk mukk mukk lu bon bu ci xeeb dara ba jël ko kon al barakatu ma al akabiri nga xam ne bi nañ ci seen borom suñu borom teral leen teraanga joo xam ne xel mënu koo xalaat bët du ko gis mukk nopp du ko dégg mukk ndax li nga xam ci àdduna lépp wuti nag la foofa àdduna bu ñu waxee ne alaxira da nga fa am lem da nga fa am soow da nga fa am sàngara mooy rek li nit ñi bëgg fii rek ñu tuddee ko tur yooyu waaye lu dul tur yi xéewali àjjana bokk li ko xéwali àdduna yi amul dara lu bokk ci àjjana lu ñëw fii ci xéwal waaye comme nit ñi loolu la ñu xam yonente bi salaa xam dafa ne nahnu maasil anbaa umirna an nukalima ala qadri uqurin nun yonent yëpp suñu borom daf ñu digal nu wàcc ba tolloo xel nit ñi ngir wax ak ñoom ngir ñu mën nu dégg waaye ñu ne waaye kon nag aywa bismillah kon nag foofu la yàlla yemale waxtaan wi nanu ñaanante yéenente jàmm te dal di àgg ak jàmm bismillah ah ayril bashiri fashrub bil mutahhari yakuf kaydal murxami sëñ Tuubaa wax na ko ci gis bu nee na juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy waxtaane rawatina guddi gàmm def ko ci ndox naan ca ndox moomee dana fekk xam ci وعادي من يكفر نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له باخر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالا بعيدا ونعوذ بالله من كل شر وسوء ولا حول ولا قوة إلا بالله الألي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله نبيا ورسولا عليه أفضل الصلاة وخير السلام والموك جلتي قلناه فنسلنا في المرام يلا جلاله وعز كماله جلتي ينتم بتد به لن خمني موي بنت نت دي تخي دي بنت دينة دي الله دي خمي الله luy dellu ci lim daawoon def rek mooy fàttalente jullit foo fu mu toll di ko di fàttali boppam di rëccu di takkuwaat ngir jëm ci li koy jëriñ ëllëg baax na ne doy di fàttalente itam fu ñu daje ndax jataay seen jataay bokk ci jataay yi nga xam ne du doon jotaayu perte ëllëg borom du ko rëccu mukk ndax jullit fu mu toll dafa war di fóot di duy dangay fóot bala ngaa duy fóot fóot jeex fóot xole ci jiitu moo ci gën moo ci gën a war moo ci ëpp njëriñ itam xol bu fóotu ba set suñu borom daf koy duy ak leer leeru pexe leeru bëgg yàlla leeru xam yàlla wax nañ ko daanaka fu ne waxtaane rek dund dund bu mel ne dund baahima moo yées ci jullit dund baahima mooy lan yi ngay aajowoo ci sa mbiri àdduna rek ngay ittewoo soo xiifee sa xel bu dem ci lu dul lekk soo maree naan soo gëmmantoo nelaw soo feebaree faju ah mala yi tam noonu lañ ko lañ koy defee rek danoo wute bind rek waaye ñoom it loolu mooy seen ittee ku ko def nag bu ëllëgee ñoom ñu gën la demin ndax ñoom suñu borom togg leen jëf santu leen dara digalu leen terewu leen loolu jig na leen doomu aadama nag loolu jigu ko doomu aadama ko jig mooy ko waxee fu mu toll di fàttaliku ëllëg am nag itte itte gannaaw bu ngëm dëgëree kon li gën a njëkk a war doomu aadama mooy wéral ngëmam ngëm dañuy wax ne garab la dañ koy suuxat mu toll ngëm doomu gëléem la bu tuuti dañ koy dundal di ko toppatoo ba mu rëy kon ngëm ku bàyyi sa ngëm wàcc ko rek topp sa àdduna day gën a tuuti di gën a tuuti ba du la tee jaar ci jaarwaay yu bon ya gannaaw am nga dara ci ngëm nag doo fa sax foog nga génn safaan ba dem àjjana waaye nag ni sa ngëm gën a néewee doole rek lay gën a tëlee set musiba ak dàq safar faral na muy waxtaane ne ngëm dana àgg ci xolu doomu aadama safara wa ci àllaaxira daf koy ragal day ragal jëmm ji ndax ngëm gi gi ci xolam ndax suñu borom dafa am kattan ba dara ñemewu ko dara mënu koo résister ki gëm dëgg dëgg ba ngëmam àgg ci yenn ci daraja yi buy jéggi siraat safara wi day tiit naan ko yow boroom gëm gu rëy gi sa leeri xar kanam yi mu ngi fay sama safara wi gaawal nga jàll am ci boroom ngëm yi ñoo xam ne bu leen safara gisee tiit ba fay ni ko seen Abu Yazid Bistami wax fàttalente bi muy wax rek dañuy fàttali lu ci nekk waxtaan leen ko ay yoon ndax mawdu bu fekkee ne daanaka benn rekk lay doon ci jamono bu nekk te mooy tëzkira dañuy wax di ko waxaat ngir di ko beesal rek ci xol yi tey jii waxtaan wi ni mu daan toll du ko tollu ndax jamono ju moo xat mayuñu ko kon dañuy mos la tuuti rek wan fi jóg am yeneen jataay fàttali nag wa dakkir fa inna dikra tanfa'ul muminin jullit xolam mooy ras maalam maanaam mooy capitalam te fàttali ak fàttali ko rek mooy raxas xol moo koy feetal ni nga ko waxe woon léegi te loolu itte am itte lool moo ciy gànnaayu nit ki fàttali nag di fardu far fardu kifaaya mooy lan farata joo xam ne teguwul ci loofu benn nit rek waaye ci loofu mboolem jullit ñi la tegu bu amee ñu jóg jëf ko mu wàcc ñëpp bu kenn jógul def ko nag mu war jullit ñëpp buñ ko deful bu ko kenn deful ñu jullit ñëpp am bàkkaar kon fàttalente suñu boroom moo ko santaane dafa ne falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taifatun li yatafaqqahu fi ddiini wa li yunziru qawmahum ida rajaw ilayhim laallahum yahdaruuna kuréelu jullit bu ci nekk na am ñu ca jógee dem jàngi diine buñ jàngee diine ba xam ko seen warugar matagul ñu ñëw xamle ko suñ jàngee te jàngale wuñ ko waare wuñu leeraluñu xuppe wuñu wàcc nañu warugar woo xam ne ëllëg daañu leen ko laaj jëmmit bu fekkee ne yaakaare nañ ko xam dara ci diine buñ ko laajee bu waxul la mu xam am na bàkkaar sallallahu alayhi wa sallam dafa ne képp ku nëbb benn xam-xam ci xam-xami lislaam yi bu yomal xiyaamee ñu dañ lay laxaale laa bi safara qul jiba bi li jaarin min annaar bi li jaarin min annaar kon loolu lu ma tawatandi ko la إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أ و ل ئ ك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون سنقوم بفتكفه في نب خمخم ليغا خامني نيغي نيب ليغا خامني مان سونو بوروم نان يالا واتيناكو سي نجوب اك سي لير خامل الاسلام اك سي نجوب غنا بماكو واتيه با ليرال كو سي تيري بي سي سبب سما يونس بما يوني ñooñu day suñu borom daf leen di rëbb rëbbeekat yépp di leen rëbb loolu moo waral aaya yooyu ak xadis boobu bu ñu woowee ci lu jëm ci xamle li diine duñu am sañ-sañu bañ a ñëw fekk amuñu ngànt loolu it moo waral waruñoo nëbb dara ci lu ñu xam dañ ko war a wax jullit ñi bu ñu ko waxee nag ta sunu gar mat na lu wacc buñ ko jëfee mu jëriñ leen buñ ko wul lolu nak du ne man dong ma wara wax wala dama sété ko kenn wala dama gëna xam kenn wala dama gëna man kenn wala dama gëna sawar kenn sama walu bop rek la wax gar la nak bu suñu borom tege ñi ci nak ñepp ñu ngi ci ku ci nekk ya nga fa nga féete ya nga def la nga man ak la la war mi ngi ay ci xol bu set bu fees ak ngëm yàlla ñu waxe woon ne ni ñuy yare diine ba mu rëy rek ba àgg ci fi ma ko tuddee woon léegi lépp luy safaanam nag mooy kiiraay kiiraay mooy lan mooy lu dox diggante nit ki ak leeru yàlla ngëmam day mel ne sondeel boobu ngelaw li di upp muy gën a néew doole ba mujj dootu leeral mën na dem ba fay la qadar lahu la sama borom bi tabaraka wa taala dafa wàcc alquran wàcc ay tegtal alquran di kéemaan gu mel ne jant bi ak suuf si ak weer wi xam ne borom dong lay aw meloom wàcc ko muy lu mën a waare di nu xamalit nanuy waaroo ci lépp lu bind alquran di ko jàngal di wax ak borom xel yi di wax ak borom xol yi borom xel yi daf leen di woo ci settantal toog ci sa béréb fàttaliku li nga tooñ fàttaliku li wéy ci sa dund nga xam ne perte nga ko fàttaliku li ci sa kanam nga xam ne danga war a farlu jëriñu ci ndax xamuloo kañ lay yem mun lay waxtaane kon nag suñu borom jàll jalaaluhu wa azza dafa indi téere bu ñuy jubal wàcce ay nit yu ñuy jubal ñi di yonent teg ci ñu ñëw ci seen gannaaw di xamal li yonent yi indi woon al ulama warasatul anbiya bindee doomu aadama noo xam ne daanaka nu mu bëgg a mel rek mën nañoo mel ndax dafa tàggat yaramu doomu aadama nooyal ko tàggat xolam nooyal ko ba nga xam ne lépp loo jëm te mënuloo ko charte ya moo def boo ko jaaree na ko war a jaaree rek da ko mën waxuma la xol mi gën a nooy yaram waaye yaram ci boppam nu ko nit ki bëgg a def rek ñi nga xam ne dañuy tàggat seen yaram ci wet gu nekk di ci def ay kéemaan yoo xam ne da dem ba defe ne ak njabar la ci xeetu tàggatin bu nekk xol nag moo raw yaram ndax yaram am na yax te yax mun loo koo lem mun loo koo taxañ xol nag nangu na lu nekk mu ngi aju ci ni ko nit ki tàggate waaye nag yiy dox diggante xol ak leeru yàlla ñëpp di njabootu seytaane yi di gannaayam ñoo jafeel sunu liggéey ñoo bëgg a dox sunu diggante ak njub di ñoom seen bopp ñu di ay kiiraay di sàkkit ay kiiraay mu wax ni doom aadama bi ñu bëgg a mel noo ma ngi dem ak a dikk bëgg mel rek bu fanam guddee mën na koo mel waaye mi ngi aju ci itte ju mat ji ak not gi ngay noté sa bànneex kàttanu wóolute gi nga am ngay dem waxtu wu nekk fooy jëriñoo di tan nañu ngay àndal ñi xam ne dañ lay jëriñ di toog jataay yoo xam ne boo fay jóg doo ko wàññi koo waaye da nga fay jëriñoo di fàttaliku di toog di fàttaliku suñu borom ñaax nañu ci battaay yi yonent bi yee nañu ci battaay yi alquran inna fi zalika la ayaati li qawmin yatafakkaruuna li qawmin ne li qawmin yaqiluuna yooyu yëpp borom xel yi lay waxal wane ne indi naa lu doy sëkk ci kaw suuf ngir ngeen mel na ma bëgg ngeen mel ko li nga xam ne moo leen di jëriñ ëllëg doomu adama li muy njëkk a xeexal balay àgg ci xeex ak seytaane mooy bànnee xam aada aduwika na lati bayna janbayka sa bakkan mooy noon bi gën a màgg ci sa ay noon lim ci gën a màgge gën cee naqaree xeexal mooy lim lay buux di la si jëme yépp lu neex la sa bànneex lay doon du la digal mukk lu naqari te di la jëriñ doomu aadama bakkanam ci la tàyyeel nekk ci la bëgg nelaw nekk ci la bëgg jam ñam nekk ci la bëgg taar nekk ci la bëgg alal nekk ci la kañaan nekk ci la yéene lu ñàkk yéene lu rafet nekk ci la fexe yu bon nekk lu bon lépp ci xol la nekk nit kee koy yaatal mu dugg sanc bu fa yàggee sax dootu na neex a dindi إن مكارم الفتاة بحسب مكاره النفس وقدر النفس teraangay doomu aadama ëllëg mu ngi aju ci naqar naqari bakkanam fii ci àdduna ak ay coonoom yu mu teg boppam ngir texe ëllëg wa qul i'malu fa sayara allahu amalakum wa rasuluhu suñ borom ne ñu jëf leen yàlla akub yonentam day daañu jëf li ngeen jëf daañu ko gis te daañu leen fay ëllëg doomu aadama bi xam ne nag yu xasabul maro alal fiqit miri ma alfatiri wa alal naqiri daañu xisaab nit ki dana taxaw ëllëg ci kanamu yàlla xaqi yàlla njëkk génn xaqi waajur xaqi doomu aadama yépp jullit ñi ak ñu jullit daañu xisaat nit ki ci xit xitmiir ak fatil fatil xit xitmiir naqiir ca doomu aadama jamono jamu toll woon bi loolu di wàcc bu mu fabee doomu tàndarma dindi ñam wi mu des saal bu wow bi saal boobu ku ko amee nit te fayu la ko muy bor muy loo ko am bañ ko koo delloo muy loo ko nax jël ko muy loo ko forcé wala nga jaar ci ay loi ba jël ko te moomuloo ko bala ngay jéggi siraat danga ko fay buñ tojee saal boobu buñ ko tojee lu weex li ci biir ak der su weex si ci diggante xar-xar bi tëdd ci yooyu nga xam moo gën a ñàkk solo nit ki daanaka du ko jëriñoo ko ko ameel nit ki ne boo rek gàttal ko ne lu toll bën bën bu sëkk ko ameel nit doo jéggi siraat te fayiloo ko ko kon war a wattandiku bu nu wattandikoo suñu borom wattandiku suñu morom ameel xaq sa borom sax moo gën ameel ko sa morom ndax suñu borom moom mën naa jégale lu nekk doomu aadama nag bu keroogee bale dootu am ndax ku ne la nga am doyu la li ngay dimbali gannaaw yi ma wax jataay yi suñ toll di taqoog lu nuy fóot lu nuy fàttali lu nuy xupp ñu nuy àndal béréb yi nuy toog li nuy xalaat lu nuy waxtaane lépp di jëm ci lu ñu fóot nga xam ne ittee nu koy may nu dimbandikoo ci itam turu yàlla ndax turu yàlla gànnaay la goo xam ne seetaane ñemewu ko waaye nag waxtaan nañ ko ay yoon faral nañuy waxtaane ne seytaane mu ngi mel ne xaj bu xiif xol bi jikko yu bon yi ci nekk mu ngi mel ne yàpp wu nekk ci biir néeg bi xaj bu xiif bi gis na yàpp wi fekkee ne borom dàq ne ko ba mu demit fii xam na ne yàpp ngi fi te xiif na day bàyyi bu borom demee mu ñëw dugg ci néeg bi seytaan noonu la mel ci xol bi ñamam bi muy dunde mooy jikko yu bon yi féeg jikko ju bon jaa ngi ci xol bi bu nit ki tuddee yàlla seytaane day randu ba fële mu taxaw boo noppee rek mu dugg ci waxtu woo xamee ne yooyu nekkul ci sa xol seytaane du fa gis mu soxla wala lu muy dundee day dem wuti feneen ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يسدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين آه، فبئس القرين كيف كو خامني وان nga gannaaw fataliku yalla mo xam da nga dul jang alquran da nga dul tok ci waxtane yu bax da nga dul deglu waré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 nga def ci yoonu yàlla moo koy def الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم دا بغا تبخ جاكا دا بغا ديمبلي ني جانغ الاسلام دي جانغ القران دي اي نيتو مرانك دا بغا جوخ جيم جو خامني سينوغا سي موم رغال يالا تي كو رغال يالا بن بوكو ديفال مو گن فك مو گن تيمر مو گن جيم نيت لو ديفال كو رغالول يالا ليكتي سولو سا بوب ci koor bis boo xam ne du farata ci yow da ngay ngàtt ngoowu xiif bi nga xiif ak mar bi nga mar te yàlla rek tax xam ne da nga xeex sa bakkan ba mën ko seytaane jub na taxaw fas yéene ne du am te jëf jëpp jóg jóg bëgg koo jëf seytaane wax da ko daaneel ñeenti jël waaye bu mujj bi boo wattuwul mu daaneel la julli dafa jot nga xam ne waxtu jot na nga ne naa jóg jàpp seytaane la waxtu wi yaatu na mën nga àggali ji nga doon def mën nga def nii mën nga def nii ah boo néewee foofu kàttanu ngëm bu sa kàttanu ngëm woyefee nga xaar tuuti ci toog ci lu ko jarul boo amee kàttanu ngëm gu ko man ci wet googu ba daaneel ko nga jóg ne bërét ba jógee tàmbali julli mu dugal ci say cër tàyyeel dugal ci sa xol ay xalaat dugal ci sa bopp ay xalaati àdduna xalaat yi nga amoon problème yi nga amoon ñi nga diggaaleeloon loo bëggoon loo doon wut yépp xalaat yi yépp dal di ñëwandoo ci sa bopp benn yoon nga di ko xalaat ba ne asalaamaaleykum doo am ca julli ga dara dara dara dara dara tax teewlu dañ koy jàng teew da nga ci njëkk a tàggat sa bopp bala ngay mën a teewlu si julli da ngay teewlu ci lu dul julli da ngay faral di toog di xalaat sa yu bàmmeel di xalaat laaj te dina malaayika yu tar yi raglu yooyu nga xam ne malaayika yi seet yi sax seen dañ leen ragal ñemewuñ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 xataayu waxtu wi eh, dana ko gàttal kon li ma naroon wax lépp xëy na ñu ko séddalee juróomi cër wala juróom-ñett sax benn bi rek moo fi xëj waxtaane woon nañu ragal yàlla ci xas ba gëm ne mooy buur bi sàkk lépp te tepp suuf wu randu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 lu la waroon a dal am loo xam ne dana fekk yooyu mu xam da nga ko def wala doo ko def xam la waroon a dale bu njëkk mu bind ko si àlluwa yoo xam ne la mu bind dana ko far te xam na ko te daf ko yéene waxtu nga xamee ne nag la waroon a dal doo def lenn lu ko mën a fanq muy lawxul mahfuz mu ko ci àlluwa jee nga xam ne lu mu ca bind dootu ko far mukk loolu tax ñaan di yokk fu di rafetal de di sank musiba mu jëm ci nit ni ko ñaan di defe sarax di ko ko def wax nañ ne arif yi wax nañ ne suñu borom dana yëkëti musiba jëme ko ci réew ndax jëf yi ñu jëf wala melo yi ñu melowoo benn xale rek bu dal jàng alquran ca bismillahi rahmaani rahim ja suñ borom walbati musiba moomu yóbbu ko feneen mu bañ a dal ñooñu kon suñ borom nigul ba xale bi dal mu soog a xam ne kat dafa leen a war a fegal musiba mii xamoon na ko ba dara amagul ba xam ne mooy tax mu dindi musiba mi musiba moom nga xam ne bindoon na ko ci àlluwa ci juróom-ñaari àlluwa yi nga xam ne asamaan su nekk àlluwa nga ca xam ne lii mu ci bind kat dana am luy tax mu deñ xamoon na ko ba noppi ba nga xam ne bu ñëwee da amul dara lu koy fanq musiba moom nga xam ne bu waree ñëw nag te amul dara lu sàkkoon lu koy fanq xamoon na ko bind ko ci loxul mahfuz waaye suñ boroom ni ñenn ñi ne dafay bëgg a def lii ba noppi dara tax mënu koo def déedéet wala defatu ko déedéet xamoon na ko ba noppi soog a arrêté nag la nga xam ne ci lay mujj kon jàng alquran li ci nekk ci xéewal كن من قواه فحيث ما يبث للصبي في مكتب يكتبه العلي ووالديه ولمن يعلم براءة من ناره فلتعلموا وقتو خلل بسم الله الرحمن الرحيم جان فاتحة في دار نتك ألوى في فوجم سنبرم بند بندلكو أك مج أك دين في سفر بندلكو نياري واجر بندلكو كيكو جانغل بما دم دي كون limuy dund lépp dafa war nek ci fexe lu koy muccel rek fexe lu koy xamal yàlla fexe lu koy jégel yàlla fexe lu koy soril safara lu koy soril seytaane lu koy soril musiba kon xarit sax su koy tànn na wut xarit bu rir bu yor bu labir bu am xel bu yew bo xamne ne daf koy fàttali waxtu wu waxtu yokate mu sawar loko waxtu yu bëggee dugg ci lu dul noonu mu génne ko ca xarit boo xam ne du maslaha ak yow ci bàyyi la ci musibam wala muy wut lu la neex ko def daf lay wan say rafet rafet di la nga di ci gën a góorgóorlu di la wan ñaaw ñaawteef nga di ko gën a bàyyi di ko watandikoo xarit boo xam ne ku ko defal lu ñaaw mu defal la lu rafet ku ko yéene lu bon mu yéene la lu baax ku ko xañ mu jox la ku ko dog wan ko gannaaw mu dikk jokkoog yow bu ko defee da ko roy te boo ko royee jub nit fu toll war na am kilifa war na am royukaay tax nit ki du jub mukk mukk ba àgg ci ne ak jubam mat na mënatu la yokk féet nekkul xutbul xaw si ñu dénk ko jamono ji siddiqoon yi tax ak ak saab yeneen yi ak ab daal yi daañu juum daañu juum def lu ñu warul woon a def bu ñu fa jógee réccu ko kon nit du mat mukk mukk ba du juum du jàdd waaye liy matuk doomu aadama mooy foo juumee rek dellu si wëlbatiku foo defee lu dul loolu nga tuub ko réccu ko fas yéene mu bañ la dalati mukk doomu aadama bi na xam ay waru garam na xam ci tawxiid luy dëgëral ngëmam xam ci fiq lu muy wattandikoo ak lu muy na muy jaamoo ñu ko digal yépp na mu koy defee xàmmee farata yi ak sunna yi xam na mu koy defe jullee bi njëkk a war mu xam na muy jullee xam na muy taxawe